moom mi nga xam ne seen xarit la moom mi nga xam ne seen mbokk la def leen def ma boo demee nga nuyul mu bu baax a baax a baax suma mbokk waa Matam parce que ma ne dama moom président Matam la faqe koon Matam la waa juróom jógee dem Fatick donc moom am na fii cër am na fii loo xam ne lii amu ko woon fenn nuyoo yooyu nag nee na ma nga yow séeréer bi yow Mbagnick Ndiaye yow yaa yónni pour nga liiral ma nga yóbbul ma lettre bii nga xam ne bind na ko 45 responsables du départementaux yi nga xam ne yi nekk na baa ngi nii c'est une lettre adressée aux militants bu ko defee dinaa ko jox seeni responsable ñu photocopier ko képp ku nekk militant boo xam ne bii war nga ko jot rek nga jot ko parce que waxul ne lettre bi dama ko adressé à Yaya Abdoul Kan wala dama ko adressé à Gatou Ndiaye wala dama ko adressé à monsieur le maire mais daf ko adressé aux militants donc yéen militants yi yéen militants yi yéen tax ma ñëw fii yéen yéen a tax ma ñëw fii. bismillah bismillah. ñëw fii nag comme ni ma ko waxee woon ca njël bu njëkk mooy indi nuyoo président de la république. la ngi leen di gërëm di leen sant yéen militant yi ak seen i responsable góor ak jigéen parce que nag en 2008 ba ma waxoon seen naqari yéen waa Matam da ngeen mobiliser comme un seul homme nekk ci ginnaawam man mun naa ne yéen Matam Haalpulaar ak séeréer yi rek ñoo gëmoon ne Macky Sall mun na nekk loolu wane ngeen ko parce que yéen a taxaw ba en 2012 mu nekk président de la république loolu Macky xam na ko. Je mu ne mu mobilisation gis na engagement mais gis na une détermination pour que moom seen doom seen mbokk xarit président de la république du Sénégal jërë ngeen ñëpp parce que bi ngeen mobilisé ba fal ko ba pare. dañoo dem élection législative Macky nee na ngeen gën a pour jox ko majorité boo xam ne bii à l'Assemblée nationale mun nay dogal te kenn ko ci compte yéen maanaam. 45 départements. madame deuxième. deuxième mot, c'est un, c'est une mobilisation, mobilisation une détermination un engagement auprès du président Macky Sall prolongé son âge élection locale jeex na élection législative mooy li ñu amoon rek en 2012 mu jàkkaarloo ak population bi utiwaat un deuxième mandat. Macky nee na dans la lettre au militant bi nga xam ne dinaa ko bàyyi fii benn 2012 ak 2017 am na programme boo xam ne bii def na ko mu nekk loo xam ne lii def ko def pour sénégalais yëpp bokk ci sénégalais yëpp am ci njëriñ. programme yooyu nga xam ne bii def na ko yaakaar na ne yéen ngeen ko jàppalee ba ëllëg ak civil mu continuer programme yooyu programme yooyu gis ngeen ko ngeen waa Matam démb démb bi ma demee Kanel gis naa yoon wi nu mel fii ak ak yooni Kanel bi dina jàpp diggante Mourosso gi ak Agnam romb naa fa mais bourse sécurité familiale yi am ngeen ci couverture maladie universelle am ngeen programme Pima bi am ngeen ci Matam na léegi un Matam ñu la ko en 2012 ngeen nekk 2019 il faut ngeen nekk benn il faut ngeen nekk benn il faut ngeen nekk benn 2019 président Macky nee na il faudrait que yéen waa Matam ngeen mu avec le parti Benno yagari mais également avec les mouvements de soutien nga avec les associations avec les jeunes avec les femmes avec les ak responsables pour que au soir de 2019 au premier tour Macky Sall ne wiiw Macky Sall wiiw Macky Sall wiiw nag yéen waa Matam war ngeen a xam ne seen devoir la seen responsabilité la parce que Macky Matam la Macky Macky la Macky Macky Sénégal yëpp ko defee ñun ñëpp nañu jóg bàyyi xuloo yi bàyyi ngaayoo yi xam ne lenn rek mooy suñu objectif muy en 2019 au premier tour ñu ne département de

ah xam naa ne Macky gañe na Matam Macky gañe na Matam jeunes xale yi des jeunes mobilisés faire de lance du parti au fond dinañu génn pour que Macky am un score quatre-vingt-dix pour cent à pour mu am ko il faut que jigéen ñi yéen yéen jigéen ñi il faut ngeen jóg dugg ci kër yi xool carte d'identité yi carte électeur yi mais il faut que aussi au mois de février ngeen dem inscrire en masse pour que véritablement le sport de Macky soit un sport qui au soir du jour de vote de 2019 lui donnera encore un dernier mandat. yéen waa Matam man de bu ma amoon li am ma kontaan 87 virgule 75 pour cent législative xanaa di ngeen mën a def 78 virgule 85 pour cent.

Ba moo ko wax ci kanam séeréer bu ngeen amul quatre-vingt pour cent dina dellu si waat fii ma jël yaaya Abdul dem jaay ko ma jël sababam dem jaay ko kon nag ngeen am quatre-vingt pour cent mon ami lettre bi li ci gën a am sens mooy il faut jóg taxaw nekk benn mobilisons derrière le responsable il faut ngeen ubbi parti bi. may daaneel nag. na ngeen may ma nuyoo. nuyu. le ministre Kalidou Diallo. na ngeen ma may ma nuyu suma xarit Gadour Ndiaye bi xam ne maak moom ñoo nekkoon à la suma jàmm préféré Ablaye Sall Sall mais dina nuyu aussi kii nga xam ne suma naataangoo la ñaari yoon mu Yaaya Abdou Kan Yaaya Yaaya meer la comme man Yaaya meer de Gambie la comme man mais Yaaya ministre la aussi man le maire de Matam ko remercier ci effort yi nga def na ko. pour que France dañoo teewee ndaje bi mais nag mais nag damay nuyu koo xam ne kii ba dara newul dara est-ce que dégg ngeen ni ma wax ba dara newul dara ba dara newul dara. venga akakabere na yote Vous êtes léegi Vous êtes responsable du mel Confie retour autour de la table dans l'unité dans la fraternité dans la cohésion pour seul objectif réélire le président Macky en 2019 dès le premier tour Vous êtes bu responsable du mel ah bu ma demee dinaa dem Màkki man tam gonga man tam gonga man ko gonga man tam ko gonga di nuyu sama jigéen yi sama kilifa yi nekk fii mais ne nii yéen yéen a tax le parti di vivre maa ngi gërëm ñëpp